jërë ngeen jëf mbokk auditeur u Afia FM yi dikk ak yéen ci seen émission bi nga xam ne moom la ñu jagleel tey jii pàcc bu yaatu jëm ci li nga xam ne moo di violence basée sur le genre di violence xeetu métital yoo xam ne ñu ngi ko teg ci ndoddu jigéen ñi rawatina période bii di Covid 19 ñu gis ne ñu bëri dañ ci nekk ay victimes tey jii nag si waxtaan wi ñu fas yéene ànd ak ki nga xam ne moo di madame Nafi Touré di présidente réseau des femmes de Grand Yoff ak madame Diabou Touré di présidente également. groupement des bàjjanu gox bu Grand Yoff waaye également dinañ ci ànd ak soxna euh, ma jigéen Ndiaye Diawara di sage femme ca Elisabeth bu Golf ñu bàyyi leen rek soxna yi ngeen nuyoo madame Touré ñu ngi lay nuyu. Euh, madame Diabou. asalaamaaleykum ñoo ngi leen nuyu Mame Fatou. Mm-hmm. Ah, di kontaan ci woo bi ngeen ñëw à chaque fois bu amee lu xew ñu mën ci waxtaane di nuyu nag bàjjenu gox yi nga xam ne ñëpp maa leen représenté au niveau de la commune de Grand asalaamaaleykum wa rahmatullah Fatou maa ngi lay fay di rafetlu invitation bi maa ngi nuyu sama naataango yi ma fekk ci yi ma bokkal plateau bi maa ngi nuyu auditeur ak auditrice rajo Afia FM di leen sant di leen ci invitation bi rafetlu tamit teewaay bi fii merci. Euh, ñu dem déglu témoignage yu benn bàjjenu gox bi jëm ci wàllu violence yi nga xam ne ñu ngi koy teg euh, ci ndoddu jigéen ñi ñëwaat. waay jigéen ñu bëri dinañu xeex gaañante ndax suñu poste de santé sax des fois nga yóbbu fa ni dox violation léegi tam dina am ñoo xamante ne dañoo xuloo xuloo bu métti ba nga gis ñu génnee seen i bagage pour loolu yëpp ci waxtaan ñaax sama morom jigéen ñi ñaax sama morom doom yi ak sama naw yi xamante ne fenn neexul fépp a yem fenn neexul wax dëgg yàlla bu dee juróomi kaa sax am na fi ñoo xam ne gaañu nañ ci say xeex ba yóbbu leen mu fay bu dee juróomi kaa li ci des nag ay xeex la rek xeex nag mën na am gàcce mën na am màtt mën na am lu daj ñu xeex acté leen arrangé leen toog te arrangement bi yëpp nag aussi da ngay dem uti ndimbal boo ko jox jàppale tuuti lu mu tuuti tuuti tuuti sax mën faa toog jàppale loolu te jéem uti lu mu def te heure bii fu mu nekk nii kenn amul loo def kenn amul loo jaay fenn amoo fenn foo jaar ndëgëm ñuy sëy ñoo ko mënul am massement ci nekk ndax li lay dal sa biir kër mooy dal keneen ci biir këram kër yëpp a yem dee kër yëpp a yàlla daal ci sutura daal la ñuy dox au moins weer bi waa àtte naa fi juróomi xeex yoo xamante Euh, ñëwaat ci waxtaan wi jox kàddu gi madame Touré la présidente tey jii jigéen ñi ñu ngi dund loo xam ne pratiquement dañu ko doon euh, dund ci pendant des siècles laa mën a wax ay métital yu ñuy teg ci seen dodd mais li ñu gën a nemmee avènement wu euh, Covid 19 bi dafa mel ni métital yi dafa gën a bëri. tey jii boo doon def xayma ci situation jigéen ñi jëm ci métital bi lan ngañ ci mën a wax. muy jaaxle nag ci famille yëpp jaaxle nag ci Sénégal yëpp jaaxle ci àddina bi yëpp ñuy ñaan yàlla mu saafaraal ñu ko ci nu mu gën a gaawee pour mu jóge fi. Mm-hmm. madame Diabou Touré yow bàjjenu gox nag xam ngaa ne du ñàkk nga am ay exemple yoo xam ne mën ngañ ko jox surtout ci wàllu violence yi ñu gën a nemmeeku euh, métital yi ci jamono ji nga xam ne ñëpp a ngi dund àdduna bi yëpp a ngi dund mbas mi ñu constaté ne jigéen ñi euh, si la ñuy gën a souffrir effectivement maam Fatou masawu jigéen ñëpp rek xam ne Covid bi rek coono la métit la ah, ñu bari ñoo xam ne euh, dañ daan liggéey ci jigéen nga xam ne dañ daan daani seen doole bi Covid méttee ba métti liggéey ñoo doon liggéey sax dañ ko muñu arrêté loolu nag suñ ca boolee di méttital jigéen beneen problème lay doon. Mm-hmm. beneen problème ndax yow yaa ngi bëgg loo dundale sa njaboot. léegi nga tasante góor goo xam ne moom xamul exactement ak ak yelleef bu jigéen xamu ko xamul sax qu'est-ce que c'est une femme qu'est-ce que une dame xamul kan mooy yaay xamul kan mooy mag parce que damaa defe ne bu fekkee ne yow am nga yaay am nga mag am nga rakk am na loo xam ne waroo ko def te ma gis jigéen ñu bari ñu ngi koy jànkonteel am ñoo xam ne sonn nañ trop mm. trop trop trop ci moment yi ah xanaa ñaan yàlla rek parce que dafa am benn boo xam ne comme boroom mënu koo wax mën na koo dund te mënut a fexe ba mu génn ci biti mm-hmm. day xaw a metti pour nga wutal ko solution mm-hmm. ñi ci am solution rek mooy ñi nga xam ne ñoom am nañ fu ñu am ak ñu ngi déglu ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci côté justice bi di mën a dem di wax seen i problème ñu mën a mën waaye am na ñoo xam ne mënuñ ko wax te ñu ngi koy dund dund bu metti ah di leen masawu rek xam ne yàlla tam mën naa mu teg jaam xëy na peut-être teg boobu mu la teg ëllëg dina ko mës a dindi ji waaye metti na lool tabarkal macha allah naa ci biir émission bi dinañ gën a ñëwaat ci yenn exemple yi euh, soxna ma mm. jigéen mm. Euh, yow sage femme nga euh, amaana du ñàkk aussi nga am ay parfois ay patientes yoo xam ne dinañ ñëw nga xam ne ñii elles sont victimes de mais duñ ko mën a wax ay forme mais mm. peut-être physique bi la ñuy ubbee nga jox sa xalaat ci wàllu woowu après xam naa dinañ gën a ñëw ci li nga xam ne moo di droit sexuel yi nga xam ne gis nañ ne jigéen ñi parfois seen wàllu wér gu mu jur sax day menacé wu waaw merci Fatou euh, damay rejoindre sama tata bi fi mu daanalee rek mm-hmm. parce que nit soo amee sa naqar même soo ko génnee te fekk ne ñi ngi ko ñi ngi ko génneel mënuñu si mënuñu ko tas mm-hmm. dafay nekkaat beneen problème mm-hmm. parfois nga daam bu ñëw femme enceinte nga gis ne am na dund na violence physique yow lan ngay mën lu dul conseiller ko consulter ko conseiller ko bu jaree hospitaliser nga hospitaliser ko mesures yi ci war yëpp nga def ko mais am na foo xam ne foofu ngay yem parce que mënoo koo ne da ngay porter plainte par force d'habitude sax duñu porter plainte mm-hmm. nëpp nëppal lay nekk gaañ-gaañ baa ngi fi métit baa ngi fi donc fu muy mujj ci nëpp nëppal lay mujj donc comme ni ko maman bi waxee léegi su amoon foo xam ne au moins ñoom dinañ am fit ñeme parce que yaa ngi xalaat yow soo demee côté justice nga commencé mm-hmm. porte plainte yéeg ko wàcc bi lan lan la nit ñi di wax lan lan la mm-hmm. say dëkkandooy di wax lan la la famille bi nga nekk di wax da ngay obligé bàyyi nëpp nëppal te loolu mën na la gaañ mën na gaañ sa doom donc euh, comme ni ko maman waxee am na foo xam ne fa ngay mën a moo noo topp malade bi ba mu yegg nga ne ko da ngay porter plainte par force wala yow nga dem porter plante nan ngay def donc amaana sax yow procédure bi bu ñu ko enclenché yow di nga ci wéet parce que moom même bu décidé porter plainte sa après day bàyyi wala mu certificat médical am ba teg yëpp ba pare après day bàyyi mu seet te teewul am na si ñoo xam ne dañ ko tàmm ñoo tàmm dóor jigéen bi xawma vis la dañoo feebar xawma lan moo leen dal dañ ko tàmm da gis koo xam ne saa yu ëmbee jëkkëram da koy dóor boo ngay conseillé ba sonn wax nax ko ba sonn mais dana lu ma si mën mënuma si dara donc ñooñu tamit seen jëkkër yooyu tamit jar na tamit di leen approché di xool seen bopp yi lan moo si nekk parce que loolu tamit y a problème def naa ne loolu tam problème la madame la présidente est-ce que yow en tant que présidente parfois di nga am ay jafe-jafe yoo xam ne di nga koy dund ci sa groupement yi nga yor ay mhm. femmes yoo xam ne ay victimes de violence la waaw dañ koy dund bu méttee ndax euh, bu loolu amee sax man dañ may woo si des fois mm. euh, am na ay viol taux bu mu ñu waxoon ne bëgguma avancer benn chiffre mais Grand Yoff li ci toll ci viol dafa bari bari na torop torop torop te dafa gën di yokk am na benn euh, femme boo xam ne fii la ñu violé ko ñu ñëw wax ma ko ma ne ko nañ dem ci fiñ la ko defee ñu dem ci kër ga fekk xale bu góor bi daw ma yóbbu ko police ñu def déclaration yi ma dem asbef parents yi nangu ñu ñëw bi ma demee asbef asbef seet ko visite ko ordonnance yi maa ko jënd famille bi nangul jël benn charge kon kooku nangul jël benn charge kooku xam nga ne du poursuivre mhm. comme que dama doon liggéey ak euh, Serigne Mor Mbaye mhm. ma dem fa ñu def document bi di ko yóbbu tribunal bi ma ñëwee wax ko seen famille ne ko nañ leen dem papa ji yaay ji dañoo bañ ne ma du ñu dem jarul ñuy dem bàyyi noonu ma ne ko yéen lii lii moo tax yëf yi di yokk parce que bu fekkee ne bu ñu feewlee seen doom au lieu que ngeen topp ko juridiquement ñu dem ba ca buuba ñu punir ñooñu kon Euh, bu ñu ko deful góor ñi dañuy gën a yokk encore di def loolu xale yi jigéen ñi donc finalement dossier boobu noonu lañ ko tër bàyyi mm-hmm. am na yoo xam ne nag poursuivre nañ ko jusqu'au tribunal. Mm-hmm. ci fii ay xale yoo xam ne def nañ leen ko. Euh, mujj gi dañoo condamné ñoom mais li ci gën a méttiwaat dañ lay condamné. un an même pas un an nga ñu bàyyiwaat leen ñu génn ci biti. Mm-hmm. loolu aussi découragé na jigéen ñi lu ci baree baree bari. ñu violente viol violence boobu ñu lay def mun na am viol. da nga cay jëlee grossesse boo ca jëlee grossesse dañ ku moom ku góor ki sa bu ko nangoo danaan la dindi ko avorter bu ko defee ñu nekk ca nekk ca nekk ca bu xale bi mënut a deñ yàlla rek moo yore bàkkan bu ko defee xale bi juddu mooy indi euh, xale yi ñuy sànni ci poubelle yi. Mm-hmm. xale yi ñuy juddu nga rey ko. Mm-hmm. suul ko ci pax wala nga def ko leneen. donc man damay ñaax sama mbokk jigéen ñi. lépp muy sa doom muy yow ci sa bopp bu la dalee bu dee euh, mënoo yor xale bi nga joxe ko parce que fii nag ñu bëgg adopté ay doom ñu ngi fi pas plus tard rek sama koñ am na fa kooku jur na xale bi mënu koo yor te neen du dellu village du yóbbaale xale bi dafa ñëw ba ci benn kër mu nuyoo ne ndaw si téyel ma maa ngi ñëw kooku téye ko mu dem yoonam xale baa nga léegi am na léegi 6 mois kooku au moins mun nañ comprendre loolu mais rey bi lañu war a ba ak gas suul bi ak ay avortement loolu mën sa bakkan mën na ci des dañuy ñaax jigéen ñi ñu bàyyi ci loolu ku ko ci yàlla indil ndogal nga xam ne yàlla moo ko dogal nga bàyyi ba sa doom juddu soo ko mënta yor nga jox ko ñu fi bëgg doom bari nañ te amuñu ko loolu ci xeetu violence sexuelle yi la bokk euh, yeneen forme de violence la parce que nemmeeku nañ ne surtout cas de viol yi bëri na fi mhm. te li dal peut-être physique violence physique yi jigéen ñi di dundu seen kër yi mhm. moom la également ñi nga xam ne dañ leen di sàkku euh, di dund ci bëri malheureusement ay victimes victime lañ mais duñ nangoo wax. duñ nangoo wax loolu moo yàq nag euh, euh, li suñu liggéey. parce que boo koy topp pour dem justice. parents yi dañuy bañ wala dañ koy nëpp nëppal sa duñ bëgg ma xam comme ni ko dem madame a waxee mm-hmm. euh, violence aussi ci biir kër yi xam nga ne covid bi jigéen ñu mm-hmm. bari ñu ci bari liggéeyatuñ mm-hmm. ñu ngi toog ci biir kër yi te xam nañu dëkk bi dafa metti njaay mi ñu doon jaayi marché sax dañ ko bàyyi te jigéen am na yoo xam ne ni ñuy demee ñii dañuy leb di liggéey dootoo mënati fay bor ba problème topp la ca sa jëkkër loxoom jotul ginnaawam wala même loolu moom la ñuy wax violence financière mhm. xal jigéen ñi léegi ñoo yor kër yi mhm. ñoo yor njaboot gi surtout nag moment yi ñu toll nga xam ne école baa ngi ubbi fourniture yi taxaw nañ euh, inscription yi taxaw nañ te boo liggéeyiwul boo jaayiwul doo am loo ko fayee mhm. donc vraiment violence bi bari na au niveau des femmes ñi ñaan ñu jàppale leen dimbale leen ba nga xam ne dina xaw a wàññeeku mais daal la femme sonn na trop au foyer sonn nañu. madame Diabou Touré euh, femmes yi aussi ay victimes lañ ci surtout violence bi nga xam ne euh, xëy na ñu bëri jàpp nañ ne du violence moo di wàllum violence économique ndax période bii ñëpp xam nañ ne liggéey doxatul góor ñaa ngi toog ci kër yi ñu ci bëri te jigéen ñi lañ doon xëy di liggéey defatuñ ko yow en tant que bàjjanu gox ndax am nga ay euh, cas yoo xam ne daan nga ko constater surtout ay jigéen yuy ñëw di la expliquer jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund ak yenn métit yi effectivement loolu moom tout le temps day am am parce que jamono moo tëddee noonu surtout nag euh, bi Covid bi ñëwee fekk nit ñi ñu daan liggéey comme par exemple ñu ma wax ne dañ daan seen doole te am na kër yu ñu daan liggéey yoo xam ne ñooñu bi Covid bi ñëwee dañ leen arrêté ne bu leen a ñëw mooy ñi nga xam ne ñooy daan seen doole pratiquement ñooñu ngay gën a dëkkal ñooñu ñoo gën a sonn ndax dañuy jógee village ñëw dëkk ci néeg ñu doon groupe. te pratiquement seen liggéey yooyu ñu bari dañ ko arrêté woon ci début Covid bi métti woon na trop trop trop ba nga xam ne tout le temps dañu ñëw di la solliciter mbaa ñu di la wax ndax du ma am noo ma mën a jàppale wala euh, doo ma wutal koo xam ne su ma xëyee dinaa ko mën a defal benn liggéey bu bi def maa rek nga xam ne du fa yendu mu am sax lu mu dundee. parce que am lu mu dundee bi sax moo doon problème. ndax fi ngay liggéeyee fa ngay lekkee. soo amul liggéey bi amoo benn rémunération ndax xam nga nit ñi ni le jour la ñuy vivre li ñuy am ñuy mën a jànc Euh, loo xam ne dina may am tam aussi maa ngi doon wax ne euh, coronavirus bi war na bàyyi ñun ñëpp ñu bàyyi xel ci ñun parce que doon na loo xam ne nit ñi dañ daan jël tam seen alal di ko saax saaxee n'importe quoi te normalement corona ah, war na tax fi mu nii nit ñi xam exactement nan la ñuy vivre après cest à ku ci amati liggéey nan ngay def soo amee as tuut nan ngay fexe ba économiser ci nga xam ne su bërët jotee nga dugg ci ndax ñun dañuy ñoom ñun jigéen ñi rek loolu mooy suñu problème ndax lu mu métti métti métti métti dañuy yore suñu xaalis di ko kasar kasare bi corona bi ñëwee nga toog ay moment am liggéeyoo loolu bu fekkoon ne jenc ak astuut xëy na peut doo dem wax mais dama ne wax ne lii leçon la boo xam ne nit ñi war nañ ko ci xoolaale ci violence bi ma lay wax na surtout violence yi nga xam ne mooy faite aux femmes man dama ci am bu ma proche boo xam ne moo ma gën a métti ci àddina man mënuma ko sax définir damay xool xale bii du ma comprendre qu'est-ce qui une très belle moom waxtaan ak moom rek mooy dagg saagay ndey saagay ndey rek moom defe naa ci la dëkk benn jour ma ko dem ne ko est que yow wér nga wala yow est-ce que dañ la liggéey te pourtant ku ma proche la man ko yow dañ la liggéey wala lu man comprendre ma yow doo xoolee la femme à travers toi tu te dis que ne kii est-ce que dara la du ñemee sax yow nuyu la yow yow mi nga xam ne yaa bokk ak waa ji ñemewu laa nuyu bu fekkee ma ngi fay dem. ndax lan ndax ragal kenn comprendre ñemewu la sax nuyu yow su doon kaf yow kaf ba kooku dugg si sax kan moom ko arrêté ba. man comprendre ma dama xool ba caag ma ne ko yow est-ce que yow mënu yow doo tas xam nga kenn doo tas kenn du ko wax nit mais dama koo xool ñeewantal ko ba sama xol bi te billaay wallaay soo ko gisee xam ne jigéen dëgg la mais am na góor ñoo xam ne rey leen dafa dagan ren di fateet billaay dagan parce que man mënuma comprendre nu la jigéen di jure nga am sa soxna mu ku rafet toppee la yoroo ñaari dërëm ma ren lu su ko baraada moom yoroo au jour le jour ngay vivre te lii muy vivre ak yëpp mi ngi lay suturaal kenn xamal ko dara dana am mbubbam mu rafet xartu bam dag ko ba mu rafet sol ko ba mu silbise boo ko doon ne ay jabar diw ja te yow mënoo ko may jàmm man loolu laa mënta comprendre vraiment am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi dund loo xam ne man ne ñaanuma yàlla sama doom dund ko te sama mbokk mu ma jigéen du ko dund ndax jaral na maa xeex man waaw parce que man mënuma comprendre da di am foo xam ne ne boo feetee doo fa mën dafa am fooy yem mm. waaye am na ñoo xam ne bu fekkoon yow yaa leen jur billaay jar na ngeen ngeen bàyyante so su bàyyiwul nit ki parce que nag yenn yi metti na ay saagay ndey yoo xam ne dafa dëkk da daay man salaamaaleykum ndokkee jëm ndagg saagay rek amul non kenn musu ko man bi ma juddoo ba tey te lii man dama ko dama ko vivre man. dama ko vivre fekkee loolu lan lan moo tax góor wala am yenn violence gis jigéen nag war a am bi est-ce que du mbëggeel baa fa jeex. wala yenn <laughs> benn mbëggeel amu fa ku bëgg nit dina ko def noonu bon ngay wax bon. Hmm. dafa am ñoo xam ne naturellement dañoo bon. bu ñu seen jabar jekkee rek sax. du ñoom rek dee la ñuy bëgg su leen kenn xoolee ñuy bëgg dem alaxira te yow joxoo ko dara yàlla binde ko nag mu am bind bu jekk tabarkalla macha allah rafet nga xam ne lu mu sol mu rafet su ko góor nuyu woon nag yow mooy loolu mooy <laughs> boo yegsee ci kër ga mooy dee na c'est du jamais bi mhm. man mosuma gis loolu mhm. waa waaw loolu dama ci wax tuuti rek mhm. xam nga dafa am góor ñoo xam ne man damaa foog ne dañoo wóoluwul seen bopp boo xam ne ils ne sont pas sûrs d'eux parce soo takkee jabar indi ko ci kër gi ñàkk day am léeg yàlla def xéewal mu ñëw mais soo fekkee ne yàlla defu la xéewal yoroo dara mayal jàmm sa jabar ah, mu dem daani dooleem mm-hmm. ñëw ci kër gi di togg ngeen bokk lekk ba yàlla changé situation mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne foog nañ ne comme ko yoruñu rek ndaw si dafa leen di xeet mm-hmm. wala ndaw si day génn defi nëkkatu sudul noonu donc ba nga xam ne lu ndaw si def rek danaan kii dafa da mu koy trahir wala mu ngi ci yeneen. Mhm. parce que dafay nekk psychologiquement ci mhm. boppam. donc loolu bu manque de confiance la daal ci góor dafay jàpp góor ñi ba nga xam ne duñ may seen soxna yi jàmm. Mhm. Euh, donc wala aussi nga am yoo xam ne da ko koy wax gis nga jigéen a ngi dund loo xam ne ci biir néegam. da lay wax yu naqaree naqari wax yu naqar ngay misère. ñu naan lan la lu ko dal fekk li muy dundee ci biir néegam jëkkëram di ko ko yekk ci biir néegam violence verbale bi moo gën a métti donc di ko di la ko def say doom di ci xool. Mhm. te duñ ci mën dara. Mhm. ak dëkk ak nit mu lay tong pendant des mois wala des semaines wala des années yoo xam ne. te rus nga génn ci kër gi ñu ne bàyyi nag njabootam wala mhm. génn na. donc Sénégal xam nga famille sénégalaise tëyal sa sëy bi toogal muñal. sa doom muñal ba nga dee ñu dem. suñu la donc loolu moo fi am. mu takk keneen indi. voilà mhm. madame Diawara. loolu man dama ne loolu signe faiblesse la. Mhm. parce que góor bu faible. Mhm. yow boo ñëwee sa kër nga nekk fa gaynde. génnee si mbedd mi. koo di ree nekk naan diw dafa dafa laabe dafa neex man loolu faiblesse laa ko jàpp. parce que munoo. yow ñi nga xam ne ki nga xam ne yaa ko jëlee kër ndeyam ak kër baayam takk ko andi ko mu bàyyi ñëpp ñëw si yow. Mhm. te 99 pour cent jigéen ñëpp ñooy mottali dépense. maa la xale yi kaye. la si yëre xale yi lépp ñoom ñoo koy def. Mhm. donc yow amoo lenn loo ko mën a defal ay saaga. Mhm. guddi gi li ngay gis góor ñoo xam dañuy fanaanee xas jabar guddi ba fajar xas la xas la ba yow boo mm-hmm. jigéen ñi goitre quatre-vingt-dix-neuf pour cent góor la cardiopathie yi ñun genn wàll gi parce que naqar bi ngay am métti mm-hmm. xol bi ngay am di ko dund depuis des années mm-hmm. nga toll ci sa doom yi nekk ay tout tànk magaguñu mag boo xam ne yow war nañoo laa mën a seconder suba yow balaa ñuy tekki fekk ne yow c'est trop tard suul nañ la bu yàgg nga dee ngi ne sa beneen morom naan ndekete lii am na ndekete loo xam ne nag man dama ne jigéen dara dara la ko jaral. loo xam ne yàlla tegu la ko. Mhm. bu ko teg sa bopp. te subaa sax say njaboot bu ñuy gis sa sa di def violence boobu sa papa di la def yéen di la saa moom bu màggee day foog ne war a yoree mhm, mhm. jabaram noonu la leen war a yore da leen war a violenté mhm. ñaata lañ fi gis ay góor yu violenté jigéen ba mu mujj ci maara day ñaata yoon lañ gis ay papa yu violenté seeni doom ba ñu parce que li ngay acharné parfois da ngay mere yaay bi sax nga dem wàcc ci xale yi def defule ci xale yi ba maara day a xam ma subaa am na lu say doom di comporté loo yoo xam ne yow loolu si seen papa la ko gisee ñaata doom taaw lañ gis ñu attaqué seen papa du benn du ñaar mm-hmm. du benn du ñaar preuve tangible papa yu jàpp ji jaaji di dóor di dóor di dóor nuñ ko def doom bi dañ ko sosoo dóor papa ji ba ñu hospitalisé dañoo dóor seen papa ba mu mokk rumb loolu gënalu leen woon mhm. mais dañoo dañoo dem lekk ay mag mhm. muñ nañ ba sonn taaj nañ seen papa mais mu paa bi nu mu ndawee noonu la violent mais xale yi dañoo defula ci <laughs> buy dóor yaayam dañoo defula ci kawam ba mu mokk ñu hospitalisé <laughs> la jaaree may yaay jàpp donc am na loo xam ne doom su ko defee waru ko def sax parce que du yoon mhm. mais am na loo xam ne tam jabar sa nawle la mhm. munoo koo téye di ko surtout jigéen bu ëmb nga téye ko di ko mhm. xas ah. jigéen bi daal saa yu ñëw hôpital tension normale mhm. saa yu demee kër ga tension bi yii buñ ko hospitalisé téye ko sax parfois sax góor nu muy comporté woo di nga xam ne kii dafa violent yow sa jabar day wasit nga ñëw yow doo lijjanti sax ndaxam mu ngi ci jàmm ndaxam mu ngi ci salaam déedéet buñ la bàyyee nga dugg ci saal bi dugg nga rek te doom ja ngay jubal xool doom ji ah bébé ah góor la ah, allah. <laughs> ma ne ji nag. Ah, mu dem nar a sa <laughs> ji nga war a njëkk. dëgg yàlla ordonnance bu gën a. kii boo joxee ordonnance yaay jox ordonnance doom. ordonnance doom bi la ñuy dem jënd ba pare xanaa mu am kit ñu door a andee na waaye yaay ji na xaar après. donc yow maanaam yow daal ki nga xam ne depuis des années yéen a ngi ne kooku moom am na leneen lu gën a nekk priorité si moom. donc kooku da ko war a toppatoo. jàppale ko nga xam ne bu subaa moom au moins nu muy gën di màggetee. même bu dee bi sedd ngi rus mm. mm. la doomam mm-hmm. boo fi gis sama yaay lay a tekki dafa mel ni quand même jigéen ñi est-ce que du euh, benn moment ñoom ñoo nangoo doon ay victimes parce que mënoo nekk ci sëy boo xam ne amaana bañ lay labat ba takk la neexoon na ngeen di dund mbëggeel ñu dem ba benn moment parce que dañ koy wax ne góor noo gën a yàgg ak moom euh, mu mu lay jéppi yow ku jigéen ki ngay gën a attaché wu ci moom est-ce que du parfois jigéen ñi ñoo nangoo noon doon victime pour di subir yi nga xam ne moo di violence yi. parfois di nekk victime malgré yow. Mm-hmm. parce que yow munoo nga jur ay doom. sa doom yi dem ba dool benn âge boo xam ne sa kër yaay ak sa kër pap amatoo fa place soo génnee parfois yow contrainte moo lay téye parce que soo mhm. génnee fan ngay dem amoo loo liggéey amoo loo jàpp mhm. mënoo jël néeg di ko fay mënoo jël mhm. appartement di ko fay nan ngay def soo fa bàyyee say doom keneen ne ñëwaat dinañ dundaloo sa doom loo xam ne dina metti donc yow da ngay obligé toog fa malgré yow nga muñ muñ ñu lay wax ngay muñ di muñ peut-être yow da nga ne dina jeexi wala kat comme sëñ baa ngi jëm mag dina changé mais am na ñoo xam ne ku nekk xam nga yow ki la yàlla booleel. xam nga ne kii borom xadar la am na ñoo xam ne nag xadar gi da leen dab am na ñoo xam ne nag toppandoo da leen neex. Mhm. ndax nit mënoo nekk ak moom des années et des années mu xëy benn jour rek commencé saaga commencé saaga di buruxle kon donc mu ngi indi comportement boo xam ne. Mhm. soo ko bàyyee. Mhm. saaga yi sew sewaan bu yàggee mooy indi mbéj. bu yàggee mooy indi gaañ la. gaañ la ba pare dellu neexal la. nga nga koy dund day dem mel ni yow violence boobu da nga ko tàmm da hmm. dem ba mu nàmpatal la ci ba nga xam ne nag yow mii bu la dóorulee am na jigéen ñoo xam ne nag beneen kaala hmm. beneen kaal dóor yi da leen neex. wala mel ni ñoom histoire te rayante bi loolu. da leen neex ñooñu boo xoolee au fond li lay pousse ci ngay def loolu di la ko jëmbat moom moom ko góor ki moo la ci nekkal parce que kenn bëggul nekk sa jëkkër ngeen di tontonte 23h ba ñu nodd fajar ngeen di xuloo di tontonte di xuloo di tontonte hmm. xale yi di ko dégg di ci jël kenn bëgg ko dëkkandoo yi di ci dégg déggati nga ne waa kër Jóob bi ñu ngay commencé nañ déggati nga loolu am na loo xam ne kenn bëgg ko hmm. moo tax jigéen ñi dangay ngay obligé yow nga toog di souffrir hmm. guddi gi yëpp nga fanaane koo jooy ba fajar boo xëyee suba nan ngay def boo ñëwee sax consultation yow ouverture lay doon da ngay gis ko xam day ñëw rek toog nga xam ne kii ça ne va pas. soo ko cofee tuuti rek mu craqué. Mhm. da ngay obligé tëj bunt bi bàyyi ko mu la défoule défoule parce que loolu nekk ci moom amul fu ko génne. bu dëndee ci moom ba xolam giif nga conseillé ko wax moom après mu dem. Mhm. dina ñëwaat beneen jour boo xam ne sax loolu andiw ko mais day ñëw mel ni comme genre compte rendu. Mhm. dina jéem a amante yow affinité. comme genre compte rendu la ah léegi de moom kane léegi de moom nii na. mais ni ñuy dundee violence dafa metti mm-hmm. saaga dóor xaste dóor bi sax xam nga da nga koy yëg sa yaram mu ne mm-hmm. mais xaste bi dañ lay xas xas yoo xam ne sa xol bi lay jàpp mm-hmm. yow nga koy misère di ko toog di ko jooy di ko jooy bu yàggee dalay jural feebar stress sax c'est l'ennemi du cerveau stress boo xam dafa baaxul jigéen yëpp stressé nañ donc amul lenn loo mën a def li nga doon taaba taaba di ko doon foraatu covid bi de kenn génnatul donc yow li ñu la doon jox ngay jël ci li ngay am di ci dolli amatoo loolu déjà loolu stress lay doon moom mu bëgg la ci dolli leneen te li ko maman waxee seen dara matul ba pare nga bëgg ci andi ay affaire neexul tamit mm-hmm. madame la présidente comme ni ma ko laaj léegi rek est-ce que parfois aussi jigéen ñi ñooy nangoo doon victime parce que nag violence yàgg na ci àdduna bi mais toujours jigéen ñi booy xool li jigéen di faatu ci wàllu violence amaana bu ñu tëjee kaso yi du mujj fenn comme ni nga ko waxee benn moment lañ leen tëj après ñu gracier leen wala ñu bàyyi leen donc kooku ay njabootam tasaaroo mu daanaka benn moment est-ce que jotul jigéen ñi euh, génn quand même parce que ñi ñaa ngi def ay combat yoo xam ne quand pour ñu xeex violence jóge fi mm. mais dafa mel ni wax ji rek doyul est-ce que jotul quand jigéen ñëpp génn ñu def benn marche national bu mag boo xam ne mm-hmm. képp kuy jigéen ci Sénégal di nga génn de manière ñu xeex li nga xam ne moo di violence pour une bonne fois waaw man Fatou li nga wax dëgg la mais foog naa ne ñun combat bi depuis je me fàttaliku euh, 2008 def nañ fi loolu quinzaine de la femme yi fi daan am 8 mars yi fi daan am dañ ko daan def sol suñu yére yu weex topp tali yi di dox def suñu slogan dox ko wax ko te gisuñu dara lu ci lu ci lu ci lu mu saafara loolu moom marche bi ak yuuxu beeg wax bi pas plus tard bi ñu violé xale bi nekk Casamance ba mu dee def nañ fi marche mais fu mu mujje mujjewul fenn ñun amul façon xeex bu ñu deful ci violence faite aux femmes et aux enfants lépp def nañ ko fii ci Sénégal mais gisuñu dara lu ci yokk bu fekkee ne am nañ victime ñu jël ko yóbbu ko à justice ma la du yàgg nga tase moom ci mbedd yi mhm. ñun fi mu ne ñi nag sonn nañu nag euh, wax nañ ko léegi euh, xam nga jigéen ñi am na ci ñoo xam ne sëykat lañ dañu nekk ci famille sëykat loo leen munti def dañuy toog sëy mhm. mais génération bi ñu nekk xool leen divorce yi ni ñu bari ah, boo demee tribunal suba ba ngoon jot 24 heures sur 24 divorce ni ñu parce que xale yi nangootuñoo muñ la seen yaay mhm. doon muñ divorce yi bari nañ xeex xuloo wala nga tëj sa jabar sa nga dem doxi ba fajar nga ñëw ñibbisi xale yi nangootuñ ko donc violence boobu yëpp dafay bari am na nañu nangoo sëy ñu toog comme ni mu ko waxee léegi danga naan man am naa fi juróom-ñaari doom juróom-ñetti doom tey bu ma tasoon tey dem sama kër papa fu may nekk mm-hmm. dama leen di yokkal charge xëyuma gontuma boo xoolee sa situation familiale danga naan man naa toog sëy te yàlla tax xëy na lii dina changé ji wala bu samay doom màggee man ma noppal am na ñoo xam ne nag loolu duñ ko fa xaar daal na ñuy rayante ba tribunal dem seen kër toog wala nga dem luye sa chambre daal di fay dëkk loolu tam nag am na lu bari loo xam ne indi na ko ci réew mi actuellement xale yi jigéen ñi sëy un an deux ans am sa benn doom ñaari doom génn dem luye ji appartement aussi loolu ñu def nañ ci ay ay gëstu def nañ ci ay waxtaan mm-hmm. loolu aussi gën na tax prostituée bi. Mm-hmm. prostitution bi yokku. Mm-hmm. gën na tax aussi agré agression bi yokk parce que nag boo toogee yor say doom sa kër wala nga luwee war a fay say néeg wala dundali wala nga fekk sa yaay yoral la say doom nga war koo dem jox mu dund nga ne damay dem ci tali bi taxaw pour lu ma am su ma xëyee joxe sama yaay mu dund fay sama néeg ak loolu aussi euh, divorce yu bari day gën a yokk tax. Mm-hmm. prostitution bi bari. Euh, violence bi bari. violence bi dafa bari actuellement. te jigéen ñi nag ñoo ci gën a loru nag. rey nañ ko fii euh, dañ ko doon agressé. violé nañ ay xale yu ndaw. voilà donc euh, loolu yépp ci femme lay aboutir. donc il est temps nag suñu état. suñu réew. taxawul jigéen ñi protéger leen ba nga xam ne euh, maa ngi liir sànq rek benn ay femmes yu demoon ci àll bi surtout les femmes. ñu ne ci village ñu nekk ci village yi mm-hmm. xam nga dañuy xëy dem ci àll bi uti ay matt mm-hmm. wala actuellement jamonoy tool la ñu dem ci tool yi di yóbbu seen jëkkër yi añ wala ñu dem di béy bu ñu groupe nekk 5 wala 6 di dem dugg ci àll bi di uti matt wala ñu uti lu ñu togg fekk fa ay bandi wala ay ay góor sax duñu sax ay bandi mais dañuy ne ci tool yi di béy gis la xemem la ne xaaral kii ñu def ko donc loolu aussi daf ci bari ba nga xam ne temps yi actuellement loolu moo nekk. Euh, ci ci ci kii bi. ci sous-région ay xale yu góor yu bari lañ fekk leen ñoom ñuy dem ci tool yi ñu violé leen. mun na am ñu jëlee ca ëmb on sait jamais. Mm-hmm. donc buñ ca jëlee ëmb déjà coono jafe-jafe ñëw na. donc jigéen ñi daal lu ma leen mun mënta wax. mun sonn nañu man ma dem ci ay groupement damay def ak ñoom causerie. Mm-hmm. ma pare benn femme ne ma madame Touré ma ne ah mu ne ma dama am problème kaa ñi waxtaan ma ñëw toog ñu waxtaan fekk def nañ causerie wax ci loolu yëpp ñu wax leen seen i droit wax leen li nga xam ne moom lañ war a fàggandiku ci biir kër yi donc vraiment dañ leen di dañ leen di protéger wax leen seen li nga xam ne moom lañ war a toogee seen biir kër yi ak seen doom yi aussi mm-hmm. parce que jigéen ñi aussi dangay ngay dem sëy yor say doom doo toppatoo sa doom mm-hmm. watti leen ci mbedd yi ñuy taxawaalu ah donc loolu yooyu yépp ñun dañ koy waxtaan ak ñoom femme bi ne ma man dañ ma enceinte yàquma biir ma ne ko ma ne ko baa yàqoo biir ba mu ne ma déedéet ma ne ko ana xale ba mu ne ma xale baa ngi jàng day def naan entrée en sixième mais ba léegi papaam reconnaître ko mu ne ma te papa mu ne saa ñëwee na ko dañ may laaj sam papa anam mu ne ko mu ne ko sa papa nekk fi dafa tukki mu ne ma te xale bi papaam mu ngi fi te nee na ma am na ko koy seeti foofu di ko di ko jondal ay bonbon ay kaye affaire yooyu hmm. mu ne ma mu wóor ne papaam la mu ne ma benn bés ma wax ko mu ne ma waa man da koy fekk ba ca école bi. te reconnaître ko. ah te ba léegi reconnaître ko. ba actuellement ni reconnaître na ko parce que def naa médiation bi. Hmm. dem naa ba ba ci xale bi ñu wax ma fi jëkkër ji dëkk. benn bës ñu toog ñu waxtaan ma ne ko yaa ngi seeti xale bi ci école bi. yaa ngi koy defal lu nekk yaa ngi koy may pour pourquoi pas nga reconnaître xale bi yaay ji am na beneen jëkkër hmm. mu ngi sëy reconnaître ko rek lañ la laaj parce que yow xam nga ne kii sa deret la hmm. ku ko xool sa xam ne yaa ko jur damay bëgg nga def procédure bi boo xam ne yaa jur sa doom nga toppatoo ko mu continuer jàng xale bi day def euh, entre en sixième te loolu mu ci bopp bi parce que day laaj yaay ji papaam mm-hmm. toujours loolu mun na nekk ci bopp ba day mun na yàq jàngam ñu lay ñaan rek de reconnaître ko wax ak moom ba finalement mun na ma xaw ma fu may jaar ma boole ko yóbbu ko maison de la justice boole ko ak les femmes juristes affaire yooyu ñu tomb toog ba reconnaître na xale bi xale bi am na entrée en sixième ba tey mu ngi lycée mm-hmm. donc loolu yëpp mu ngi ci biir jigéen ñi mm-hmm. ñuy dund ba dañuy xam am métit mais duñu xam fu ñuy jaar ak lu ñuy def mm-hmm. donc erreur bu amee ñu jéem a def boutique yaa ngi fi boutique de justice Médina am na benn Grand Yoff am na ku ci am problème boo fa demee dinañ la teg ci yoon te dinañ la xamal sa droit xam la fi ngay tegu ba sa sa problème ñu résoudre Mhm, madame Diabou mm. euh, mu mel ni quand même kon des na si jigéen ñi ñu gën a euh, boole doole comme ni ko madame la présidente waxee pendant des siècles mën naa wax ne ñu ngi combattre violence faite aux femme mais ba mm-hmm. léegi amul benn résultat bien que nag euh, ci wàllu violence sexuelle yi am na jéego bu ci njiitu réew mi def criminalisation mm-hmm. viol bi mm-hmm. mais teewul nit ñaa ngi ba léegi nit ñi ñu ngi am ay cas de viol mu mel ni kon nit ñi dañu amagul conscience ci li leen di mën a xaar ci kaso bi ëllëg parce euh, yenn violence yenn viol yi. ci biir famille lay doon. biir famille xeet lay doon ñuy nëpp nëppal. sama jarbaat la su ma ko yóbboon nangam ak nangam yow yow kii sëy di nga bëgg sax ñu ñu ñu yóbbu ki nga bëgg yóbbu mais dina la wax a wax a wax a wax dox xam foo jaar. yu bari mi ngi am duñu xam sax fan la ñuy jaar ndax dañ leen di topp rek nangam ki nangam war ba pare encore am na beneen affaire boo ñi nga xamee dañu yore seen doom yi ñu sëy ji yow sa doom ñëw wax la ne sama jëkkër dafa maa dóor nga gis ci yaram wi ay dóor ak ay gaañ-gaañu yow doo fa lijjanti dara du demal nga muñ ndax fii kat amoo fi place kër gi daa xat de mm-hmm. genre boobu mën na rey nit mm-hmm. dañuy toog ba seen doom yi dee ñu mm-hmm. doom di ko jooy ci dafa am noo xam ne soo ko yoree sa njaboot soo ci gisee lu la naqar da nga ci war a teg da nga ko war a dem teg ci yoon nit ki nit rek lay mën a doon wax la nga war a waxoon ña ko maye woon nañ fi jigéewuñ fii foo nga dem wax mais ñëw ku ñëw wan la ne lañ ko def yow lijjanti wala du ah te ngaa dem toog rek mu ci yàlla sax fii de kër gi daa xat mm-hmm. boo ñëwee du am foo nekk kooku da nga koy découragé ko kan lay waxee fan lay waxee na naqaram. fan lay waxee coonoom. lii euh, madame la présidente wax dëgg la parce que ñun dem maison de la justice. ñun bàjjen gox yi commencé woon nañ ci Covid bi sax moo tax. mu ne am na lu ñu bëggoon def pour nga xam ne jigéen ñëpp jox ñu ay places yoo xam ne dañ koy joxe pour jigéen ñi xam ne fii ku am problème fi ngay ñëw wax fa sa soxla te kenn du la indil benn problème. du ndax parce que ñenn ñi ragal nañoo ragal. Mhm. ñenn ñi amuñ ku leen dimbali. am na ñoo xam ne bëgg nañ mais amuñ ko am na ñoo xam ne xamuñu ñuy dem pour wax seen seen métit mm-hmm. loolu amoon nañ ci te lépp maa ngi koy nuyu au passage mm-hmm. euh, war nañ ci gën a toogaat waxtaan parce que noonu lañu façon euh, yéene def ñun bàjjeni mm-hmm. fexe joxe ay flyers di fexe nag ñun ci suñ bopp euh, ñi gën a ñimeloo jigéen ñi ci suñ bopp ba ñu xam fan la ñuy fekk ba bu coono amee ñoom ñu ñëw ñu mën a waxtaan ak ñoom am fuñ leen jaarale c'est-à-dire yenn saa yi da nga naan nit ki soo fa demee da nga ne mën na bañ a doon mën naa am koo xam ne xëy na aussi dafa am problème yoo xam ne doore du du ci cëram mais am na lu tax mais loolu boo demee di waxtaan ak moom am na mooy demee xëy na peut-être loolu dina ko bàyyi te te du am benn problème mu divorce ak yooyu parce que nit ñi liñ ci xalaat dafa bari yooyu yëpp dañ ko ci xalaat waaw dañuy ragal ne bu ñu dénoncé seen sëy tas suñu dénoncé seen jëkkër seen am fu ñu nekk yow de seen njaboot nam mais dafa am violence yoo xam ne góor gu ne war nga koy bàyyi xel mhm. doom nawle la am na façon boo ko boo koy def sa jabar wóor na yàlla yonti mi yaa ngi def loo xam ne xamoo ko waxuma la copier sax waaye xeen bi doon nekk sa doom boo xam ne tuuti la bëgg ba ilaa yom dina parce que yaay dafa jege ak doom mm-hmm. am na noo xam ne da nga koy def sa sa jabar nga defe ne moom nga koy def fekk ne yaa ngi def sa doom loo xam ne ëllëg am nañu bare ngi abandonné seen papa yi yore lu jeex duñu jox seen baay dara mm-hmm. parce nañ daan def seen yaay moo tax ba ñu màggee dund fu rafet la ñuy dugal seen yaay seen pap du ci bokk te fekk na dañu xool fekke gis te am na loo xam ne dafay ancré wu ci biir nit du ko mën a wax mënu mhm. ko woon a ŋaang mun demee mi ngi doon rek naa góorgóorlu am jom boo liggéey ma dugal sama yaay foo xam ne yow doo ci bokk yow papa ji mhm. xam nga loolu tam góor ñi war nañ ci bàyyi xel mhm. vraiment mais violence faite aux femmes daal métti na jigéen ñi sonn nañu am ñenn ñi mënuñoo wax ndax jomm nañ ko ñenn ñi ñi seen kilifa du dimbali wuñ leen parce que loolu yëpp tam am na ci kilifa yoo xam ne dimbali seen doom. waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, loolu yëpp am na ci daal vraiment. métti na des ba situation bi exagéré. mangook uh-huh. di fàttali auditeur na ñu ngi déglu euh, euh, tey jii suñu émission bi ñu jagleel wàllu violence basée sur le genre genre nag du jigéen kese nañ ko fàttali aussi. Mm-hmm. Euh, te que ni jigéen ñi di subir violence aussi noonu la góor ñi di ko subir. mais dafa ëpp si jigéen ñi. mais soxna ma jigéen bu ñuy wax violence dafa am lu ñuy wax droit sexuel yow en tant que sage femme. xam nga ne jigéen dafa soxla bu euh, tollee si euh, ëmb ak imbi euh, di toppatoo wér yaram yaramu njuram ñu constaté également que ni ci wàllu woow sax day am ay gàllankoor surtout ci période Covid bi hmm. ñoo xam ne duñu sax am sañ-sañu dem sax ci sage-femme wala ca poste de santé pour régler seen problème mu planning ak yooyu yow ndax situation yooyu di nga koy dund. <laughs> ak Covid bi même bien avant Covid bi sax am na si góor yoo xam ne seen jabar du def planning. Mhm. lu tax même bu dee dañ laa césarienne doo def planning. ci jamono ji vingt et unième siècle gi deux mille vingt fi <laughs> réew mi toll am na ñoo xam ne même bu dee dañ laa césarienne. <laughs> dëgg la defoo defoo defoo am na si ñoo xam ne nag dañoo dégg ndigal. Hmm. waaye dégg ndigal ba rey sa bopp tamit dara da koo jarul. Hmm. nga xam ne yow mii grossesse bi risque la. Hmm. rëcc nga yàlla moo yor ñëpp. bi ci topp nee nañ la nga noppalu ku lañ la wax nga bëgg ci tegaat beneen grossesse loolu risque la te risque boobu tamit booy xool ah yaa ngi sacrifier sa bopp donc man dama ne ak Covid bi am na ñoo xam ne nag moom dañ naan la bul dem dañuy am dañuy raté seen rendez boo leen laajee koo nekkoon boobu léegi dañ naan la sama jëkkër moo ne bu ma ñëw hôpital mm-hmm. peut-être dañuy ragal Covid bee tax ñuy ragal a ñëw mm-hmm. parce que dañuy ragal bu ñu génnee ñëw ci structure bi mën nañ fa jëlee dara am na ñoo xam dañ leen di bàyyi ñu ñëw mais loolu commencement bi la woon mais léegi nii ñu ngi bëgg a yeewu yeewu bu baax parce que xam nañ ne Covid bi comme nee nañ nañ bind ak dund ak moom terewul ñu ngi ñëw si seen consultation mais ticket nga gis quelques rares yoo xam ne dañuy raté parfois dañ naan la aw ma woon njëgu ticket sëñ bi yorul woon parfois ñu ne la sama jëkkër moo ne ma naa xaar parfois tamit ñoom seen i problème personnel dañ naan dama amoon damaa jàppoon wala dafa amoon ci lu ma nekkoon mais ñii xaw na tane par rapport ak commencement Covid. kon day am jigéen ñoo xam ne tey jii bu ñu ñëw seen jëkkër bu leen teree ñu def planning par exemple. bien sûr est-ce am nañ ay astuces yoo xam ne mën nañ ko def pour seen jëkkër du ko xam. ah waaw mais kuy dem ci làmb ja tam di wax nii nga may daanee nag jànk hmm. noon am na yenn stratégie am na yenn astuce yoo xam ne soo ko dévoilé wax ko. Hmm. amatul benn sens. kon hmm. kon ñun tamit dinañ sunu sunu secret yu ñu amoon wala lépp lu ñu amoon li nga xam ne noonu la ñuy jàppalee femmes yi day feeñ. mais dina am quand ñoo xam ne malgré que seen jëkkër bëggul ñu def planning ñu ñëw pour ñoom xam nañ ni risque ñu ci mën a jëlee après bu bu dee seen sorante wuñu seen i njur mais que ñoom dinañ jël seen matuwaay ak seen responsabilité ñëw def li nga xam ne. waaw am am na ñoo bëri na ay am na si boo xam ne am na si yoo xam ne boo ko defee di nga mën a indi sol chaque mois kenn xam nga kuy indi sol chaque mois moom duñ ne euh, jël nga grossesse indi sol donc am na si yoo xam ne mën nga bañ a gis. peut-être ñi ngay bañ a gis moo tax dina moom dina dute ne la ah lu tax gisoo weer bi nañ dem hôpital nangam sangam mais am na si wax xam dañuy ànd ak seen soxna yi pour vérifier. parfois am na dañuy ñëw ba hôpital mel ne kii koy day ndax day ñëw fi di def plané. Mm. Mm. waaw dañuy dégg ah yow yaay Fane Ndiaye yaay Fane Ndiaye sage-femme sage waaw dama laa soxla nga ñëw wala ñu woo la téléphone ne sama jabar dafay def plané seen hôpital mais yow doo tëb tëb rek. parce que doo tëb tëb rek ngeen ne ko sa jabar nu mu tudd mu ne diw ngeen ko waaw danga naa ko déedéet ah li ma xam ci fanjaay moom bëri na su ma ko gisee dinaa xam kan la parce que parfois am na nooy tontoo noo xam ne yow da ngay foog ne pour éclairer ku góor gi la fekk na mm-hmm. da la piégé yow mm-hmm. soxna si mm-hmm. donc duñ la woo tëb rek ne la allo ndax sama jabar fi lay defee planning da nga naan ko yow la kan kan mooy sa jabar bu ne la fanjaay ngeen ne ko ah li ma yor ci fanjaay bëri na soo leen àndee ba ngeen ñëw bu dee moom la dinaa xam loo ci bëgg a leeral ma la ko am nañ suñuy code yoo xam ne mais dans bu ñëwoon tey jii ànd ak soxna si ne ko lu tax nga xam ne kii dafa ñëw pour wax ne lu tax jabaram di planning est-ce que yéen en tant sage-femme di yéen fexe ba waa ji du du indi jafe-jafe ci seen digganteem ak ndaw si ba ëllëg si biir moom moom amul droit daal peut-être moom jabaram mais mu ànd ak ñoom dugg ba pare ne lu tax seen jabar di sama jabar di def planning fii ah moom ba jabar di def planning xam nga moom fekkee wu. à hmm. ah, moins que ñoom ñu ànd mu autorisé ko mu def benn 3 mois. jabar ji ñëw defaat te am na loo xam ne tamit moom balaa muy dugg ñun dañuy ne ko amee ñu ñu seet ko ba pare ñu génn ñu tëj buntu bi wax ak femme bi ba xam ban langage la bëgg ñu wax ko jëkkër ji su ne nee na buñ ci leeralal lenn mm-hmm. moom bu duggee toog dañ naan ko seet nañ ko ba pare waaye yow li nga wax li yëg li foo ko teg nangam sàngam lii lañ seet li parce que am fen buy defar moo gën dëgg buy yàq mm-hmm. parce que bu fekkee na nit ki mu ngi def ñëw nga toj kaas yi ah bu ñibbee tamit yeneen conséquence lay am mm-hmm. donc ñun femme bi moo ñu intéressé ndax mooy suñu cliente bu paasee dagg dugg ba ñëw toog ñu wax ak moom seet ko defal ko li ñu koy defal yépp su nee bëgguma lii parce que dama confidentialité dafa am mhm. am na loo xam ne même yaay ak doom suñu àndee nga seet doom bi bu nee sama yaay bu mu ci xam dara amuñu droit pour wax ak yaay bi parce que mhm. yaay bi consulté wuñu ko yaa ji intéressé xale bi moo ñu intéressé. dañuy teg suñu buntu wax moom li ñuy wax moom pare bu ñu paree teg suñu buntu génn. Mm-hmm. loolu naa leer na <laughs> madame la présidente. waaw mm-hmm. euh, planification moom euh, góor ñu bari bëgguñu ko. ndax euh, dañu nekk ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent. islamique lañ ba nga xam ne boo nee damay addita njur mu ñu ne yoroo ko yàllaa ko yor gémmiñ gu yàlla xar def ca lu mu lekk mm-hmm. loolu lañ lay wax def ci barke bu ñu xool nag Euh, euh, contexte bi nga xam ne moom la ñuy dundee actuellement ah, euh, dëkk bi métti na waxuma la nga yore benn xale buy jëm école rek nga bëgg éducation bu baax mhm. xas bu bari nga cay def soo ca yoree cinq wala six nag dina am ñu ca raté te doo ko mën sax bu ko defee nag yow mii jigéen nga ne man de damaa bëgg samay doom ëllëg arrivé seen njàng jaar yoon damay planifier yemale ko ci ñaar wala ci ñett ku góor ka ne la lu tax man am na sama benn xale dafa def euh, planning mais jëkkër ji xamu ko xam nga am na yoo xam ne boo ko defee boo tëddee sa jëkkër daf lay wax ni lii am nga loo def am na am na ñu mel noonu. Hmm. Euh, kii nag dafa toog jëkkër doom ji dafa am 3 ans quatre ans amu doom jëkkër ji ne ko da ngaa planifié daal di dem indi benn pël ne ko ñaanalal ma ko <laughs> ndax dafa taxaw. jabar ji dama ne damaa tiit bu ma gisee góor bi toog ma ne ko lan la. mu ne ma dangaa taxaw damaa bëgg mu ñaanal la pour nga am beneen doom mu ne ko man maa la wax damaa taxaw mu ne ko kon dangaa plan yi ñu coow ca coow ca ba ndaw sa dem seen kër xaw nañ caata si ñoo ca toppaat di ndaw si ñëwaat donc am na góor ñoo xam ne ñoom bu ñu da ngay dul rek ko yàlla yemale mais nag am na contexte yi mu laaj yoo xam ne moom il faut mu laaj ko la waxuñ sax ne bur jula parce que ñoom itam foog naa des na ci seen bopp mm-hmm. da waxtaan ak ñoom du ñu wax ne ñii duñ amaat doom mhm. mais bu fekkee ne da nga toll ci liggéey nga nga jur am nga nga koy nekk par un an demi wala deux ans kooku noo ko mën a boole ak dem di liggéey mënul nekk muy liggéeyu bureau ba muy liggéey marché ba muy yaa xam yaa yor sa atelier c'est très difficile am na ñoo xam ne da dugg ci ay atelier fekk ñu tëral seen bébé ci suuf te loolu loolu loolu àndul ak àndul ak mhm. santé bébé bi mhm. donc ba nga xam ne Euh, góor ñi mënuñu concevoir loolu dañ leen di wax na lañ soreel nañ soreel njur gi mhm. nañ ko soreel mais ñoom mënuñoo comprendre loolu loolu nag dañ ci wax a wax a wax a wax ba sonn ci góor ñi def ci ay causerie ba sonn mais ñoom daal mënuñ koo nangu ne l'islam bëggut loolu l'islam bëgg ko comme que nag ñun ay jullit lañu mhm. te nag dañu am ci charte yu ñu tegu aussi ba nga xam ne tam daf ñuy daf ñuy sonal des mhm. fois ci ci ci diggante ak sa jëkkër xam nga ba nga xam ne duñu nangu pour nga planifier da nga yow leen di expliquer mais ñoom daal jigéen ji daal dafa war a jur rek ba xëy dee wala jur ba kër gi fees mm-hmm. fu ko yàlla yemale ñoo am mais nag nañ xool ci contexte bi mm-hmm. parce que da dem doo leen mën a dundal mm-hmm. doo mën a am comportement bu baax bi ñu war a am bu ñu dul yére yu baax yi ñu war a am parce que mënoo sa doole attanu ko pour nga yor leen na nga leen war a yore wala xam-xam bi war ci ñoom doo ko mën a def ci ñoom pour ñu def ko ci moo indi rek euh, vagabondage bi nekk ci mbedd yi xale yaa ngi taxawaalu ci mbedd yi pem néeg bu sax nañ fa am benn bailleur de fonds bu ñëw di wër ci benn kër xale yi bari fa mu ne ko ñii ñëpp fu ñuy fanaan mu ne ko ci sama néeg bi te amul de benn néeg la luye mu ngi six xale ci benn néeg bi lay tëdd ak jabar ji ak doom kooku moom mënut a concevoir ne ñii ñëpp ci la tëdd mun ne ma chambre bu nekk ñaataa fay ne wala kër gu nekk day nekk dugg ci kër fekk fa ay cinquante personnes benn néeg dix personnes donc loolu lu ko loolu lu ko fii rek la am te ko période de Covid bi surtout couvre-feu bi. taxoon na bu bëri. ñu bëri quand même booy doon révolté parce que ñu ci bëri mënuñu woon xëy tëju ci benn kër. mënuñ ko. surtout ñun daara yi xeex nañ ci ci Covid bi. Mm-hmm. Euh, bi ñu ñëwee ànd ak suñu maire mu oo daara yi. y'a 45 daara à Grand Yoff mu jël leen indi leen dajale leen maire ba jox leen dund ñetti weer dem leen toog bu xale yi génn. mais damay toog sama buntu kër gis xale yu romb ma yoratuñu pot de muus la ñuy yor pour bañ ñu xàmme koo ci ne ko eekaay eh, mu ne la dañ maa yónni te fekk taalibe la ñooy leen téye leen xale yi ci kër gi feebar bi dafa bari te lii dafay gën a yokk mais fii moom dangay wax a wax be boo waxee ñu ne dangay xeex daal nga wax ñu ne bëggoo xale yi xale yi yalwaan lañu xam mm-hmm. dëgg la te ñun ay doom daara lañ ci mm-hmm. kër yi daara lañ juddoo ci lañ yaroo kon bañ mënuñ koo bañ hmm. mais leen normes la ñuy wax hmm. bañ kenn loru ci yow sëriñ bi doo ci loru xale yi duñ ci loru te dinañ am santé bu baax dund dund bu baax te du hmm. tey dinañ am xam-xam boo xam ne dina mën a jëriñ leen ëllëg jëriñ population bi donc loolu madame euh, Diabou euh, yéen en tant que bàjjenu gox parfois tam euh, si yenn programme surtout wàllu santé de la reproduction da ngeen ciy gën a dox xam naa duñ ñàkk am ngeen ay waaw ñun loolu nag moom moom presque mooy suñu liggéey ci euh, pàcc boobu ñu ngi koy dox lu bari. Euh, planning familial nag nit ñi dañoo ko gisee benn côté mais danga dem ci ñoo xam ne di nga toog ak sa seen jëkkër expliquer leen clairement ñu nangu. ndax dañuy xam exactement ndax yow li nga planning bi yow li nga xam ne mooy euh, sa doom ak sa jabar dinañ wér sa poos wér. foofu nga boo fa jëkkee rek nga xam. Mhm. sa jabar ak sa doom dinañ wér sa poos wér. Mhm. ndax. Mhm. bu fekkee ne nef gi la. coono dikk na feebar ba dikk na ordinance yi ñëw nañ su fekkee fexe nga ba nga def distance diggante doom ji kenn newul na dem rek continuer di planning mais même ci alxuraan sax am na fu ñu ci wax foo xam ne wax nañ fa nga war a nekk te bu jëkkoon nan lañ daan def. dañ lay yóbbu maa ngi sax dañ daan jóg dem di ñib dem seen i kër. di fa toog ji pour pour mu nàmpal fa ndax mm. loolu pour sa butu dellu si waat nga toog loolu yàgg nañ ko def. te pourtant boobu gisee gisewuñ ko woon. mais ñi ñuy xañ ñi nga xam ne dañ leen di xañ ñu ñu dem di toppatoo seen wér-gu-yaramu. ma ngoog non bari na bari na ñoo xam ne ñoom ñun dem nañ benn benn parce que ñu ñaan def bi suñu pla suñu euh, mbootaay gi. maa ngi nuyu au passage sama euh, madame d'enfant dañ daan dem par quartier quartier di fa di fa waxtaan. Mm-hmm. c'est-à-dire bàjjee ñëpp dajaloo fenn ñun ñëpp ñu toog teg suñuy baafu def suñu musique. Mm-hmm. teg woo jigéen ñi di leen wax ci planning familial mais am na benn góor goo xam ne grand Médine la woon keroog. non ñun keroog ñun ñëpp dañu doon yuuxu. géew mm. daal mën noo wax nun ba pare te chef de la te góor gi waxuñu loo xam ne ñun. suñ ko duggee ñun ñoom dañu suñ dañuy bëgg a dagg suñu yàpp yaram bi yéenay yàq jigéen ñi yéenay nangam ak nangam ñi ñàkk ngeen ko moo tax ngeen développé cest dafa am ñoo xam ne dañoo am ay idée arrêté am ay xalaat yoo xam ba ci xalaat bu ko dee xalaat mhm. da ngay defe ne planning familial ci côté boobu la jëm mhm. c'est que nag xam nga bu fekkee dangaa ni nekk góor xam ne tamit saawaay yow tam da ngay nit koo xam ne toogoo <laughs> dangay ngay defe ne li ngay jëf la sa jabate jëf loolu kese la mais ñenn ñi dañ defuñ ko lu dul seen wérgu yaram seen wérgu yaram doom ak seen poos yi yaxanaat seen poos jëkkër parce que am na nenn ñoo xam ne ni koy juree métti na métti goo xam ne ni euh, président wax bu geex du xaaj fii ci suñ quartier ay néeg yoo xam ne yow yooyu doom yow ñëw nan nga leen def ba dundal leen gémmañ ko ñu yàlla xar def ci dund loolu kenn waxatu ko mais dafa am foo xam ne fi ne nii dañ koy tolloo tut il faut que ñu organiser wu à ce que xale yi mën a mën a seen boobu mucc mën a liggéey mën a jàng mën a nangam ak nàngam il faut loolu nag boo boo dee da nga koo tegale tegale su fekkee ouverture des classes da nga am juróom benn xale yoo xam ne yaa ngi leen bëgg a jëndal kay bëgg te sa sa yëf matewul dafay metti yow da ngay def rek de dafa te yàlla tax li nga war def nga def ko mais sinon chaque jour que Dieu fait ñun bàyyi nga wax de la ñu dégg. lu ne dangay dugg ci foo xam ne boo fa tuddee pali neng fly dootu ko waxati ci biti ka jëm waaw yéen sof ngeen bàjjoon gox yi ah yéen jekk bi rek yàq jigéen ngeen fi nekk nanga mekaan te yow fi ne liñ la ko waxee boo tegloo ba déglu xam ne liñ lay wax defuñ la ko butu ci jàmm parce que yow yaa moom sa kër yaa ko yor yaa leen di dundal boo liggéey say doom màggee di la jëriñ yow lay jëriñ du jëriñ bàjjen ma ndax bàjjen ba dëkkoo eh, da dëkk rek mm. waaye doo fa jël di ko joxe ci dara ndax moom mm. mais nit ñi ñoo comprendre yenn yi mais planning familial wax dëgg yàlla lu mën a lu war a nekk la. Mhm. surtout am jigéen ñoo xam ne ñoom seen bourse la metti xale yi nag ñoom léegi <laughs> ñooñu ñoom fi mu ne ñi intellectuel yi fi mu dañoo vacciné. Mhm. ñoom problème violence violence faite aux am na ñoo xam ne du dunduñ ko xalaatuñu ko sax kenn du leen dóor. balaa nga ne ñee ñu romb la ñoom dem seen yoon ndax dañ naan li nga mën mën naa ko ndax dañoo jàng li jàng ba xëy yore seen i dem ci bureau ñu di leen fay ku fi toog ñu di lay dóorati yooyu ci ñoom maam sax ñenn ñi defatuñ ko waxuma laa léegi mais ñi nga xam ne nag amuñu euh, cëslaay amuñu fu ñu wéeru amuñu ku leen dimbali ñooñu ñooy mettit bi ci dëkk bi ndax fu ñu bëgg amuñu fu ñu jëm amuñu fan la ñuy nekk dañuy def seen doom yi naka su ñoom mënuñu ko ñuy jàpp seen seen seen ñoom ci seen bopp di leen def yoo xam ne mënuñ ko amuñu fu ñu wéeru daal mooy problème bi mm-hmm. état daal xam naa war na ci wut ay nu mu mais aussi tamit xam nit ku waxut li ko li ko li ko naqari doo ko mën a saafara noo koy dimbale mm-hmm. mbaa bu la waxee ne la bu ko kenn yëg xam nga loolu tam mooy mooy métti bi da ngay wax a wax mu ne waaye loolu bàyyi rek ñu bàyyi ko noonu man am na ci benn xale boo xam ne fii lañ ko bàjjana moo ko indi fi man jamono naa bay dem maison de la justice pour lijjanti ko waa ji ko ëmbal waxuma dal soo gisee xale bi mineur la de violé ko ah. ñu jàpp waa ji jàpp ko def nañu lépp ay côté yëmbal yooyu la bàjjen bi la ñu rawale xale bi indi ko fii mais pour te dire que ne waa dañ ko tëj quelque temps rek ñu indiwaat ko ñu génne ko léegi nag bi bàjjen waxee man ne nañ def procédure man dama cee mujj sama yaay ma tey nga génn génn ci lii parce que ñii bëgguñu comprendre doo comprendre mboo gisee xale bi nu mu toll ak nu mu tawee ak nu mu tuutee toujours bàjjen bi day am problème toujours bàjjen bi day am ay problème te mook papa ji ñoo bokk benn bàyyi mënu ko def dara te moom tam fu jugee rek ci mën la jëm pour ñu def ay analyse dafay métti lépp dañ koy kulo kulo xam nga tam loolu metti na nit ñi tam il faudrait que ñu ubbi seen bët yi xool ne xale yii buñ leen di violer dañ ko war a topp bu mu sës waaw doo jël sa doom rek bàyyi koog nit ñuy def du n'importe quoi da ngay dem ci justice lu mu la may nga jël waaw muy dëgg. Mhm. dëgg la waxtu yi daanaka dab nañu nag xanaa ñu bàyyi rek euh, euh, madame Diawara nga wax le moo de la fin ak lan nga yaakaar ne bu ñu ko defee xëy na solution dina am. waaw bi fu ñu terminer tuuti mooy euh, planning bi ñu doon wax léegi. Mhm. planning familial sorianto njur ci la bokk. Mhm. def traitement infection yi. feebaru sëy ci la bokk. ak traitement pour am doom. donc kiy def traitement pour am doom. ak di s'orienter njur kooku du def lenn loo xam ne jigéen bu subaa du amati doom kooku xam na leneen lu koy xaar day gën a yokk liggéeyam mhm. donc nañ s'orienter njur bi beneen bi mooy jigéen ñi tam leen dimbal di leen jàppale mhm. nañu jàppale jigéen ñi violence bi metti na muy physique muy verbal lu mu mënti doon mhm. économique jor jigéen joxoo ko dara mais may ko jàmm may ko salaam nañ jàppale jigéen ñi jàppale xale yi yàlla sàmm ñu aar ñu musal ñu si mbas mi mu jige fi ak jàmm salaam mm-hmm. ku nekk jël say matuwaay di takk sa masque di laal sa gel mm-hmm. ñu moytu regroupement yi mm-hmm. ñu kontaan ci invitation bi di remercier sunu maman yi merci beaucoup jërëjëf madame la présidente kontaan rek naa ne problème mu jigéen ñi violence yi du jeex euh, man fi may daanale rek mooy xëy na wax nañ violence bi faite aux femmes ci njureel bi ci covid bi ci lépp mais dafa am beneen aussi bu desaat xam naa beneen yoon dinañ ko laal muy excision aux jeunes filles mm-hmm. yoo xam ne ba léegi dañu fi bu ngi fi loolu mm-hmm. aussi war nañ ci taxawaat comment mm-hmm. doon nañ ko fi liggéey ba mu wàññeeku mais ba léegi loolu mu ngi fi donc may gërëm jigéenu Grand Yoff yi les groupements de femmes ak fu jigéen nekk maa ngi lay gërëm di la sant ak taxawaay bi ñu am ci biir Grand Yoff taxawaay bi ñu am ci biir kër yi taxawaay bi ñu am ci biir Covid aussi euh, maa ngi leen ciy gërëm di leen sant di leen encouragé te di wax na nañ jóg taxaw amuñu lu may suñu njaboot amuñu lu may suñu kër amuñu lu may suñu réew amuñu lu may suñu dëkk kon nañ leen gën a takkuwaat taxaw pour que jigéen am gëdd bi mu war a am jigéen violence bi tamit may la def appel au chef de l'État ci ci ci sécurité bi au côté des femmes mhm. aussi loolu aussi nañu ci jàppale dimbale ñu parce jigéen ñu sonn nañ liñ ciy mhm. rey bari na mhm. ñi dee bari na laago yi bari nañ ci sonn coono bi daal bari na ci jigéen ñi daal ñu ngi laaj ndimbal daal di ko ci ñaan jërëjëf madame Diabou waaw xanaa di remercier au passage euh, sama présidente ak sama sage-femme bu ñaawul bi tabarkal macha allah ni ko wax yal na yàlla xam ne amul lépp loo xam ne day xew te boolewuñu ci. Mm. bi pandémie bi ñëwee ba léegi amul fu ñu yéen ñaa saa yi sax da toog rek ñu woo la téléphone laaj la ba xam ci lan nga nekk lan la gaañ ñëpp nag ngeen nekk ci ci ci ci ci euh, nan ngeen di def ak nit ñi nan ngeen defee ci sensibilisation bi yooyu mu am solo ñu ci remercier bu baax. Mm-hmm. Euh, la la directrice Penengaan su di ñaan tam rajo bi yàlla na doon tele ci daraje Seydou jot mm-hmm. vraiment nekk na fi mais yàlla na doon télé. ba ñun ñëpp ñu mën ci taxaw lu bare bare. Ah, di remercier nag sama bàjjen yëpp yi nga xam ne ñoom tam ci Covid bi. Mm-hmm. def nañ seen kenn talaay kap tan mais suñu maire jàppale ñu bu baax nag. Mm-hmm. macha allah téye ci bu baax a baax a baax ba ku nekk gis sa bopp. Mm-hmm. ah di ñaan yàlla rek mbas mi yàlla na fi yàlla jëlee. yàlla nañ bokk ci ñu koy nettali. ndox mi ñëw yàlla na yóbbu lépp. <laughs> ba nga xam ne ñëpp dinañ dellusiwaat ci li ñu nekkoon. Mm-hmm. te du am benn problème di la remercier bu baax maam Fatou. di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokk xéewal yi. jërëjëf jërëjëf di ko jaajëfal moom Diabou uh, Touré di présidente bàjjenu gox yu commune bu Grand Yoff uh, di remercier également madame la présidente uh, réseau femme euh, de Grand Yoff di Nafi Touré euh, ak madame euh, Diawara ma jigéen Ndiaye di maîtresse sage femme nekk ci centre Elisabeth bu Golf ñu koy remercier bu baax di remercier Ajaratu Koura Seck ak Khadijatu Sakho di secrétaire général AGSPD Ajaratu Koura mooy coordonné li nga xam ne moo di projet bi di voix pour la santé ñu leen ci remercier lii nag newoon li nga xam ne moo di émission bi jëm ci di remercier également Bas mi nga xam ne moo yoroon nekkoon ci réseaux organiser mbir mi di leen jëfal ci déglu bi di leen dig daje ci yeneen i jëmmi jamono.